yow moom bàyyi booy lekk di yëg ci kaw lekk gi ah booy lekk di di yëg ci kaw lekk ah allez ok.

oui xar la xar yi boo ci jël baax na waaw bouton yére bi amul bouton de bii bii dama am bouton mu ngi nii nii lañ ko ñawee <laughs> xam naa dafa rafet <laughs> xam naa looy wax ci yooyu kii moo ma ñawal maam Ndeene moo ma ko ñawal wallaay <laughs> xar yaa ngi xar la boo bëgg rek baax na xar la xar yi quoi ay man am problème nag tey booy vous parlez français. <laughs> Euh, waay xa karma, xaar ma ah, voilà ma Waouh, waaw kay waaw kay, kay, kay, kay, top,

te yàgg nañoo ànd xam nga lool yéen yi jaaw ay kii la rek <laughs> damaa am problème bu Nganda Seck kaay waaw Seck kaay rek ma la ngir yàlla yéen def ñëwoon rek sama waay nga wuy waalo booy moo may tagg may dem ak may tagg léegi bu subaa nga xas ma am nga deux minutes. waaw kay deux minutes. waxal euh, Seck xama man sama xar bi tey dama am problème problème bu ma am mooy xam naa ne yow jàng nga école <laughs> jàng nga. Ah. waaw waaw nga tubaab. waaw kii nag sama client bii daa ñëw di ma làkk tubaab man xam nga sama jàng sonn <laughs> wallaay di nga ree. waaw waaw di nga ree barki yonent bi ngay sama waay da dama bëgg nga waxaale mu dama bëgg xar. Hmm. mais dama bëgg nga waxaale ak moom. xam nga dalam ma si daal wax ak moom quoi. voilà loolu la rek kese waaw voilà. ingrant moo nekk nii voilà. moom macha allah de. sek, xool ja jëma ci jaay bi. waaw ok waaw kay jëma ci jaay bi jëma ci jaay bi. voilà sama xarit sama xarit mom, kii kii. boo déggul français muuma ngay doon nii rek ngay def. waaw waaw waaw waxal ma voilà merci. jàllale rek yow noppi. Ça va Ça va bien, très bien. bien Ça va bien, merci. Ça va Et ta journée Ça va bien. Qui veut quel mouton ici Ben Serre Ben sœur. Eh, eh toi notre. Notre. Notre. Ici, il y a de jolis moutons. Uh-huh. Celui-là, il me Ça Oh Qu'est-ce qu'il y a ah, pour, moi, ça c'est pas bon. Bah, wow. Pourquoi, mm -hmm. joli Désolé mais c'est âgé. Oui, c'est âgé. Tous les moutons que tu vois ici sont âgés. Ah c'est quoi la différence La différence, c'est que quand tu prends ça, pour préparer. Non, non, papa mouillé, eh, papa mouillé. non pile. Ah, ouais, papa Quand tu prépares ça, hein, pour cuisiner, ça en prend beaucoup, beaucoup de jours. Beaucoup de jours Si.

non c'est que le xool non dama ak yi ni day un Vous avez mais def là-bas tu vois là-bas derrière. derrière moi. madame rek ok tàllatuma sama loxo gisoo loxo yi tu vois derrière là-bas Hein.. c'est pour moi. Ah, ce sont des petits moutons. oui bien sûr sont des petits moutons. madame voilà non elle a dit oui même ça 5 ans lui 8 ans. voilà tous les moutons sont âgés. merci merci. tu veux un mouton. oui un vrai mouton. derrière moi seulement. merci beaucoup. seul tu veux. oui c'est bien debout allez debout. mbay moom nee na xar yi danoo màgget. non non. yaa ngi dégg. non non waaw ni nga nekk xar xar yii bañ de ay. waaw man mënu ma si dara man nee naa ko xar yii xar yu ndaw la. yu baax la pour tabaski bi boo ko jëndee boo ko rayet da ngay gaaw ñor day gaaw a ñor. moo wax naa ko léegi lan mooy problème moom nee na xar yi baaxul. gisoo non non non non man non non bu xool fee xoolal yi. nee na sama xar yi lay jëm. kan ils sont âgés ma xam dafa magal non ma demul de ah, dafa magal eh madame eh madame taxawal eh eh frontier eh eh, eh, eh. eh yow ya ma soxla won yek bu fee fii bu fi dugg bo fi duggee nan la hop sànni la bu fi dugg de madame fi do madame eh fi do fi dugg attends attends fii ngay man nga njëkk waxal le problème man nga njëkk waxal est méchant y'a, lui est méchant c'est pas mon ami moi voilà tu vois merci loolu nga ko da nga ko ko mu dégg ko wax ko mu dégg ko voilà attends voilà

doo jaay du jaay yow ku la waxoon ni man dinaa la jàppale doo ko gëm. yow imbécile nga. yaa ma gën a nekk imbécile. boo ma tonton ma ñuus la yow. ma tonton ma duma la. kan boo ma lay duma. dugal yow yaar yow. gi nga yow booy dafa attention ah. ñëwal fan yëpp maa lay wër. ñëwal xoolal da ngay pos sa da eh, eh.